Heavyweight.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 moo tax ma naan leen bàyyi leen gabari jàmbur yi waa ji mu ngi wuyoo ci turu Njaay juddu ci atum 1990 moom na mujj nañ ko placer mandat de dépôt ci wàllu menace de mort détention d'arme blanche ak li ñu naan mise en danger de vie d'autrui xarit bi di marchand ambulant bi doon rasaatu jabaru copain bi di Njaay si soxnaam si di El Diop di ab tailleur ma ne xaw tuut dal ko laa wax yem leen seeni place mbir mi nag nee ñu nii la demee ah njaay gannaaw bi mu amee information yu ko bett ci xaritam ci diggante mak soxnaam la joge Kolda gi mu nekkoon ñëw ndakaaru ca cité imbécile ca yaraax ngir defaral copain bi bagage ba mu bàyyi soxnaam eskay marchand ambulant bi nag te bi jiin ko ne mooy rasaatu jabaram nee ñu am na ñaari jabar ak ñaari doom marchand ambulant wax de nee na moom ci boppam jabaram moo ko informé yëngal xam ne Isaa Njaay mi ngi koy def ci kawam ak biir këram naka noonu nee si la ñibbisee le premier août bi weesu mu dem kër Anjaay di xaritam bi ko jiñ ne mooy raasaatu soxnaam naka noonu bi ko Anjaay gisee rek la ko songu tàmbale ko tifaaray saagay nday <laughs> ma ne ko waroo fa dem nag ñu naan deetawaay mu génne jaasi wuti ko marchand ambulant bi sudul woon témoin yi ko fekkee intervenir kon waa ji foofu mënoon naa jël bakkanam sawaay nee na nag ba tey marchand wax nee na anjaay xaritam bi yamul foofu ndax ci ëllëg si anjaay dafa xëy ñëwaat place ci kantinam bi muy jaayee fekk ko muy waaj a ndekki mu songati ko ak jaasi ma kii buñ ko téewul dana def njombe laa wax anjaay mi naroon na def njombe ji nag bi ko interpellé ma ne dawul dara ci li mu def laa wax ndax ne lépp moo ko def njàngat li nag mooy li wolof njaay di wax dal jabaru jàmbur ba fa moo gën a woor de waaye nag fii Sénégal am na góor yoo xam ni mii teg jabaru jàmbur daal dalee na neex waaye ma jabaru jàmbur kenn du mii nan teg moom yenn mii nan wax waxuma dara nag dem ba yegg fenn fii jabaru jàmbur jëkkëram nekku fa nga mii nan teg moom di ko may xaalis di bëree ka dexanteeg moom mii moom bay dugg ci biir néegam ñu nan detawaay nga jàll ca kaw ba taal télé su meeku toilette ma yootu attaaya teeg waay waay réew mi neex way ma ne bu xale bi sangoo bay solu sax tarax laayu doo génn néeg bi waaye xam nga ne foofu lu ne mën na faa xew laa wax moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca Rufisque doy na waar ab professeur u mat daal moo fa sopp woon cours de renforcement yu mu doon defar élèves ya ay cours porno pop pop pop professeur u mat ba ndeke woo kuuru renforcement ya ay kuuru tan la ko mujj soppi ma ne xaw naa rayale jigéen ya laa wax <laughs> waay waay ki ya bon waa ji mu ngi wuyoo ci DND di professeur u mat ak physique chimie ci ab école privée bu nekk foofa ca Rufisque ba fi mu toll placé nañ ko garde à vue ci wàllum viol ci ay mineur ma ne kii buñ ko dencul dana yàqelew yëpp laa wax sawaay nag ñaari candidat yu doon def FM nee ñu la dëkkee doon saay-saaye te nelew bu jigéen bi mu ko dëkkee woon def nag ma mooy wax ne moom ak professeur boobu yàgg nañoo génn ah nga ne depuis 2019 laa wax ay way samba xale bi nee na chaque samedi professeur bi ci boppam daf ko daan invité këram naka noonu bu ñëwee maara de taali lay mujj xew ba elew bay wax de mës ñoo dem sorti Lac Rose ci biir piscine ba ñu newoon la ko professeuru saay-saay boobu tàmbalee def yëf yu bon di ko fa làmbaatu ba mujj koo jël dugal ci ab néeg bu ñu luwee <laughs> waay waay professeur bi buñ ko jëlewul ci élèves yi dana yàq élèves yi de li gën a ti doy waar nag élève bu jigéen boobu nee na professeur am boobu dong la bëgg mooy l'amour de sa vie eskay moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax film yu bon yi sénégalais yi di seena nag ma mu ngi bëgg a toj réew mi laa wax doomu kocc barma yi léegi kenn mënu leen a xàmmeeg doomi napoléon yi ma ne sénégalais yi léegi yàq nañuy yaxeet ci film yi mënatoo xàmmee télénovela si tubaab yi disee ak film yi sénégalais yi disee léegi sénégalais yi lu ne la ñuy def ci seeni film yi lu ne nag laa la wax lu ne ba ci film bu bees bu bon bu ñu mu jeesee di cirque noir boobu nag nga xam ne mooy daj dëpp gi daanaka film porno moom la sénégalais yi généraliser waay réew mi toj na laa la wax réew mi kenn mënatu ko téye ña ngay ñaan ña ngay def lu nekk lu ne ñu nga cay dugg waaye suñu doom yaa ngi ñuy bëgg a rëcc baax na rek mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz